ay yaqdiyaa ñu àtte maadaamataa li feeg sax nañu fil majlis ci jataay ba nee na sa soxna boo ne ko parce que day man góor gi man la ko yàlla moomale waaye nag yow boo bëggee fase sa bopp jël naa pase mi teg ko ci sa loxo la neexee dóor ko ci sa bopp loolu mooy kon moomale nga ko pase ku ñu tànnloo nag mooy nga wax sa soxna ne ko tànnal doon sama soxna wala nga tànn dem nu tàggoo yooyu yaar tànn ci lenn nee na yaar yi loo ci wax jigéen ci jataay ba mën naa tànn la mu bëgg boo jataay ba xasee jeex nag jeex na waaye dafa jataay ba jeexul moom bu dee ka nga wax ne ko moomale naa la pase bu ko neexee mu ne dóor naa saa bopp nangam yi pase bu dee ka nga tànnloo bu ko neexee mu ne tànn naa wéeg saa bopp bàyyi la tàggoo yow wala xool ñeel na ko añ yu naakira mu weddenteeg al mu mallakata kañu moomal pase xaasatan dong fii maa ca la nga xam ne fawqal waahidati nekk na ci kaw benn jigéen ñi nga wax ne ko pase day maa ko moom man góor gi waaye léegi moomale naa la ko bu la neexee dóor ko sa bopp su ne dóor naa saa bopp ñaari pase mbaa ñett mën nga ko ne ah man kat baa lay wax itam benn rek moo taxan may wax waaye muy ma la ñaar mbaa ñett benn rek moo taxan may wax loolu sañ na ko moom góor gi walay sa laxaa déddi ko ñeel fi tax yiir ci tànn looga an taq di mu àtte illaa bi talaasi ba rek ñett te su ma laa nukkurata topp deetu weddi laxoo di ñeel góor ga fii xaaj ñett yooyee bu nee soxnaam nag tànnal doon saa soxna wala nga tànn dem lu tàggoo lay baax rek mooy soxna su wax ne kon day tànn naa saa bopp mooy fase naa saa bopp ñetti fase maa ngi dem waaye su nee tànn naa benn la muy tekk rek mooy kon daa bëgg a toog ndax benn jeexul bu mu séegi bu nee ñaar noonu ñett rek mooy la nga xam ne moom lay wax mu tegtale ne tànn na dem ak boppam te bu xasee wax ñett itam moom góor ga du mën a weddanteeg moom naa ko ah man kat baa lay wax itam benn taxan may wax mbaa ñaar foofu la wutanteeg kee ñu moomal parce que loolu moom wute nañ ci ñoom ñaar mu ñëw ci al ilaa wa kullu xaalifin jëpp aji giñ xalaa tarkil waxtu yi ci bàyyi laal ak sara lopp min arbaxati ashurin ci yenti weer fa xoo moom muulin ajigiñ la bu dee jamono yi gor ak jaam amee gor si may nañ ko ñeenti weer yoo xam ne su waatee du jotee soxnaam itam du tax ñu wax ko dara bu dee jaam ba nag moom ñaari weer lay doon na ko wax léegi kon gor si bu yemoon ci ñeent rek mbaa jaam bi yem ci ñaar rek ne du jotee soxnaam daal di koy waat yoon du ko wax dara waaye bu waxee lu ko ëpp nag waaw kay loolu moo tudd al ilaaw ni ki moom gor si mu ne waat naa ne juróomi weer yi du ma fi joteeg sama soxna su boobaa dañ koy bàyyi ba ñeenti weer yi mat at ka taxawal ko ne ko ah yow kat la yoon may moom jeex na ñeenti weer ñeenti weer yi fii la yem seetal nag ba xam nangu ngaa deltu gannaawam déet ba nangoo deltu gannaaw dellu joteeg moom diis ko fase bu fekkee ne nag nangu woo deltu gannaaw ñu fase ko. bu dee jàmba itam bu amee ñaari weer dana ko wax léegi da ko àttekat bay taxawal wax ko loolu. ba tax mën naa walaa yaqaxu du dal xàll yi ci moom ak talaaxu pase ma illaa baax da ajalil ilaa yi dara ci gannaaw digub giñ ba waxuute moom digub giñ bi arbaxatu ashurin yenti weer la lil xorru ñeel gor wa shahraan te yaari weer la lil xabdi ñeel jaam xataa yuqifahu ba dana ko taxawal as sultaanu attekatu julit ba kon ajalul ilaa bu dee gor si ñeenti weer la bu dee jaam ba ñaari weer la comme ci mën doon daal bu dee la ba jeexee atakab taxaw la ne la la nga waatan kat fii nga sañ a yem boo nangoo wàññiku joteeg sa soxna baax na boo ko nanguwul nag ñu fase ko mu jàll si ci zihaar wa man tadahara ku zihaar min imraatihi min imraatihi ci soxnaam fala yata'uha kon du ko sañ a laal xataa yu kaffira mbate mu kaffaara bi itqi raqabatin ci goreel ab jaam mu'minatin bi aji gëm salimatin bi aji mucc mi dox yóbbu ci xeet ci kii zihaar wala islam bi ñëw daa fekkal ñu koy def mooy góor gi nuróole soxnaam ak jigéen joo xam ne araam na ko araamuk dappetu niki mu ne ko anti xaleya ka zahri ummi yaa ngi mel ne ci man sama gannaaw yaay mbaa sa gannaaw gi mi ngi mel ne ci man sama gannaaw yaay lu mel noonu zihaar la wax ji ñaaw la joo xam ne ku ko wax du tax sa soxna araam la waaye daam alamaan bi ñu lay teg boo xam li fekk difoo ko doo sañ a joteeg soxna si dañ koy njëkk a sant nag mooy yooyu jamono ba jaam amee faaw day goreel ab jaam boo xam ne day nekk julit du nekk yéefar day mucc ci mboolem xeeti sikk yi nga xam ne moo koy tee doy ni kii du nekk ku ab loxoom dagg mbaa tànkam mbaa gumba mbaa lu mbaa dof ak mboolem xeet sikk yu bare bari yépp da cee mucc te it lay sa fiihaa dir mi nekk ci moom shirkun ak bokkaale wala tarafun du jaageenu cat min xurriyatin ci ngor day nekk jaam bu sotti boo xam ne moom mi koy bëgg a goreel ci fihaar si amul kum ko bokkal léegi bu fekkonte caa moom ak wàll kee moom genn wàll ga ca des bu ko goreelee du doy te it day nekk jaam boo xam laalu dara dara ci ngor bu fekkoon ñu goreel lennam ak yu demee noonu ba tey du doy te aajowoo muy jaam bu sottee sottee fay na wéejit ndem amut saama mu woor shahrayni yaari weer mutataabi'ayni yu di aji toftaloo su fekkee ne nag mënta goreel jaam boobu nag benn jaam ba dafa amut mbaa daa amul njëgg kon ñu digal ko mu woor yaari weer yoo xam ne sësaloo fa in lam yastati ndem mënut ab xama mu leel sittiina juróom benn fukk miskinan ci ay miskin mu day ni yaari mudd li kulli miskin ñel bépp miskin su fekkee tëlee na woor yaari weer yi ñu sant ko mu lele juróom benn fukki miskin lay lele maanaam juróom benn fukki miskin lay leel te kenn ko ne lay jox ab kilo ndax mudd mën nañ ko jàppib libar boo boolee yaari mudd kon muy ab kilo wala yalta uhaa du ko sañ a laal fii lay liñ ci guddi aw naxaari wala bëccëg xataa tan qadiya ba te jeexee al kafaaratu kafaara ga fa in faxala dem def na daalika loolee fal ya tub na tuub ilallahi jëm ci yàlla xazza teet na wa jàll te mu màgg li waxagun rek mooy def na zihaar bi nee nañ ko defal alamaan bi wala ngaa joteeg moom mu jekki-jekki joteeg moom te fekk defagul dara dara ca alamaan ba koy day tuub rek tey sant ko lañ ko sant woon te wax ko lañ ko waxoon rek mooy daal di jublu ci def alamaan bi door a mën a jotewaat ak moom fa in kaana dem nekk na wattu woo laalam nga baax da an faxala gannaaw ba mu defee baax dal kafaarat leen ni kafaara ga bi itxaamin ci ak lele aw sawmin wala ak koor fal yëpp te di xaar kon na ko sosaat bu fekkee daa tàmbali woon a di lele mbaa mu tàmbali woon di woor laata muy noppi nag far joteeg soxna sax kon lam jotoon def lépp day yàqu bu fekkee jotoon naa tàmbali lele jotee soxna si lam lele woon yàqu na na tàmbaliwaat bu tàmbali woon a woor koor gi agut mu daa jotee moom ba tey kon lam defoon yàqu na na tàmbaliwaat koor ga wala ba sa ayut bi xitqin anwari ci goreel jaam buy aji pat fi zihaari ci zihaar wa wala di sina ak doomi njaaloo dañ ne woon na mucc sikk mu ne waaye nag nee nañu bu fekkee dafa pat rek bu ko goreelee du ko tee baax te loolu sikk la ba tey bu fekkee jaam ba mu goreel day doomi njaaloo wala muy jaam bu daw wala muy jaam buy sàcc wala jaam bu ci boppam day njaaloo ñoo ci yemoo yooyu yëpp neen du ko tee doy wayu siw dana doy a saxiru goreel gone ba tey sax jaam ba mu goreel bu fekkee gone la kàllufiwut du ko tee doy wa man koo xam ne nag salla xelloo naa julli wa saama te mu xelloo koor ahab bu moo gën a sopp ili naa jëm ci nun malik bu dee ci yoonu malik nag moom ka muy goreel bu fekkee ni gone la itam na fekk mu am xelum jaamu yàlla mooy na am xelum julli ak xelum woor xam ne aggu ci kàlla fi waaye am na xelum jaamu yàlla loolu daal moom lañ ci gën a taamu bu dee ci yoonu malik mu jàll si ci rëbbonte walli aanu rëbbonte bay na kul bay na kulli zawjayni ci diggante jëpp jëkkër ak jabar fii na fi xam li nekk na ci dàq ab ëmb yu daxaa boobu def na woote xablahoo ci ak njëkkam al istibraul laablo aw ru'etu sina wala gis njaaloo kal mi wadi mel ni ab tusngal fil mukk xulati ci ndabal tusngal rëbbonte mooy waatoonte ci kanam yoon li koy waral nag mooy soxna ci ëmb jëkkëram wax ne ëmb bi juruma ko li tax ma xam ne juruma ko mooy ba mu amee doom ak léegi jotiwaat moo feeg moom dara mbaa boog man kat laablu woon naa ko ba mu wóor ma ne ëmbut teylu woon naa ko ba mu gis deret deret ji wan ma ne moom mi ëmbut te boobaa lay jotiwaatuma ak moom dara kon nag bu ëmbee nii da koo njaaloo waaye man juruma ko bu ko soxna sa weddee na ko yaa ko jur nag waaw loolu mooy andi ñu waatoo ci kanam yoon benn ngoo ko ba ci des nag mooy soxna si ëmbul sax waaye góor gi daa wax ne sama bët laa ci teg sama soxna sii di njaaloo moo ko fekk muy njaaloo njaaloo goo xam damaa leer ndax damaa gis góor gam doon njaalool sawukaay góor ga di dem ci sawukaay moom sama soxna sii ni ëpp tusngal demee ci la ñu denc tusngal ba mbaa ni kuur demee ci gën noonu la wax bu ko soxna si weddee ne ko déedéet loolu amul nag dañ ñëw waatoo ko ci kanam yoon loolu nag mooy rëbbonte waxtu li fa wuteef na fi lixaani ci rabonte fi xas ci xaste rek maanaam bu góor gi ne sama soxna si daal dafa dëng day dox tànk caaxaan day njaaloo waaye taxul na mu wax ne saabat laa ci teg ndax loolu jar na ñu waatante ko ci kanam yoon wala dañu jàpp ne rek góor gi tooñ na soxnaam waxal ko dox tànk caaxaan te amul daal di koy bëgg a caw loolu ci lañu wute moom daal soxna su ëmbut bam naa ëmb bi juruma ko néewul tam teg naa ci saabat muy njaaloo yépp dara amu ci kooku da am na ñaari wax benn wax ba dane waaw dañuy rëbbonte benn ba ne déedéet dañ koy gétan rek gétanu ku tuumaal soxnaam ci loo xam ne njaaloo la ti saxut waaye duñ ko may muy rëbbonte wa isaftara xaandeem jàqalikoo nañu billi xaan ci rëbbonte lam yettanaa kaxa duñu séyeti abadan mukk bu ñu xasee waatoo ci kanam yoon nag ci nii nag muy rëbbonte gi jeex na foofu la ñuy tàggoo faw faw duñu séyeti mukk-mukk nii lañ koy defee wa yabdaw dana jëkke azawju jëkkër ja fayal ta ami tamuy rëbboo arbaha shahadat ni yenti seere billahi ci yàlla su ma yu xam ni sopp dana juróomeele billah anatu ci rabb ma góor gi nga xam ne moo jiiñe moom mooy njëkk waat bu fekkee ba muy dàq ëmb ba la day seere yent yoon ne ëmb bi juruma ko day wax ashhadu billahi ma hadal hamlu minni wax ko ba muy ñeenti yoon bu fekkee ba mu koy gisee muy njaaloo la day seere yent yoon ne gis naa ko muy njaaloo ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ba muy yent yoon ko defee mu juróomeel ko nag yàlla rëbbum yàlla daan ci sama kaw bu fekkee li may wax du dëgg mooy wal xaamisatu an laanatullahi alayhi in kaana min alkaadibina na ko alquran andee su ma tal temps nu topp dana rëbboo xiya moom jigéen ja arbaxan yent yoon aydan ba tey wattu xamisu tamit juróomeele bil xadabi ca mer ma kama zakara ni ki tuddee allahu yàlla subhanahu wa taala su góor gi waatee ba àggal soxna si daal di waat moom itam day waat rek miim lañ ko jiiñ bu fekkee ba góor gi ne ëmb bi juruma ko la soxna si day seeree ne ëmb bi moo ko jur ba mu yent yoon day wax ashhadu billahi inna hada alxamla minhu wala ashhadu billahi anna hada alxamla minhu ñu bàyyi ko ci góor gi moom ñeenti yoon bu dee bam ne gis na ko muy njaaloo la day waat yenti yoon seere ne gisuma mukk may njaaloo ashhadu billahi mara ani azni ashhadu billahi mara ani azni ba muy ñeenti yoon mu juróomeele ko yàlla na merum yàlla daal ñu sama kaw bu fekkee li may waat du dëgg muy wal xaamisatu an xadidallahu alayha in kaana min assaadiqin moo tax mu naa kama dakarallahu subhanahu wa taala wa in nakalat ndem ñeññi na mooy ndem ragal naa waat yé moom jigéen ji ruji mat kon jameef ko in kaanat ndem nekk na xorratan di gor muhsanatan ku diguñ sangiwul du wat in cig laal taqaddama gu jiitu woon na min haadal saw ji tukkee ci jële jëkkër aw saw jin baa jëkkër xëy di ju bokkut ak moom yéen bu góor gi waatee ba noppi jigéen ji rek la waat la muy tekki mooy kon jigéen ji li ñu ko waxal dëgg la kon moom njaaloo na ñu àtte ko àtteem njaaloo kon bu fekkee gor la te sëñiwu na maanaam sëy na sëy bu wér ba jote caag ka muy sëyal moo xam góor gi la moo xam geneen la waaye sëñiw na daal moom kon dañ koy àtte àtte bu rey mooy di ko sànni ay doj ba kera muy faatu wa illaa dem sëñiwut mbaa boog du gor julli dat kon doo reef ko mi àtte jël di tin téeméeri yar maanaam bu fekkee ne jébéer la mbaa daa sëñiwut kon àttem njaaloo mooy téeméeri yar wa in naka la ndéem ñeeñ na mooy nem ragal naa waat asaw ji jëkkër ja julli de kon doo reef ko xaddal xas fi kesanu xaste tamaa nii na juróom-ñett fukki yar wala xeqate yéeg bi ci moom al wala du doom ja su jigéen ji ñemee waat te góor gi ragal a waat la muy tekk mooy góor gi waxal na soxnaam tuumay njaaloo ti soxut ñu koy wax ne ko loolu na ku ko waxal nit dañ lay caw juróom-ñett fukki yar kon loolu lañ koy caw moom jëkkër ji ba noppi ne ko doom ji na sa dooma doo ko sañ a weddi way li mar ati ñeel na jigéen ja an taftadiya mu jotoo min saw ji xaa ci jëkkëram ja bi sadaaxihaa ci canam nga aw aqal la mbaa lu ko yées aw aksara mbaa lu ko ëpp ida lam yakku ndéem nekkut xam dara di bàyyi ko ci lor bi xaa ca moom nee na bu fekkee ne jigéen ji jëkkëram tooñu ko defu ko dara moom ci boppam rek moo doreel ci sëy bi jëkkëram neexatu ko mu bëgg a tàggoo moom kon yoon maye na mu fay jëkkër ji alal mën na koo fay lu tolloog la mu ko joxoon mën na koo fay lu yées loola mën na koo jox lu ko ëpp luñ ci jugoo rek baax na waaye dagam góor gi moom tooñu ko rek moom jigéen ji moo doreel ci sëy bi rek kon mu fay ko alal dem moo gën yàq alalam ba noppi bëgg a dem noonu kon góor gi la muy nangu sañ na ko jigéen ji itam jox ko loolee dara nekku ca waaye nag mënuñu takk soxna ba joteeg moom nga xam ne ba nga joteeg moom rek alal yu sëy ji daal ne sax gannaaw ba nag mu mu mu ne da koy fase ba noppi da koy fay alal ni ko aada yi defe fii xam ne ñuy faral di fayu alal ci loo xam ne fayu alal waru ca loolu ëpp naa def ndax ni ñu ko waxee woon mi la mayee soxna fekkee joti wala ak moom dara nga jekki-jekki fase ko da nga ko war a jox genn wàllu can nga soo xasee joteeg moom mbaa faatu am can nga lépp daal di war a am jigéen ji war a am can nga lépp lépp kon nag góor balaa fayu alal na ko teelu bu baax a baax fayu daal bala mu koy sañ rek mooy jigéen jaa ko tooñ ba noppi bëgg a dem bàyyi ko nag léegi waaye jigéen jaa leeral ne bëgg bëggatul sëy bi su boobaa nag kon mu fay alal te may ko baatam dara nekku ca fa in kaana dem nekk na xam dararin di bàyyi ko ci lor bi xaa ci jigéen ja rajaxat kon mu dellu jumaa ci la nga xam ne ah tat fu joxoon na ko ko wala simbaxooti war góor ga alxul fu summi koo ga nee na bu fekkee jigéen ji daa fay alal ba noppi bañ may ko baat bañ ko seetee ndekki góor gi moo ko daal lor rek moo ko tax a ñaan baat waaye moom bëggutoon tàggoo moom waaye nag góor gi koo sonal ba jaral ko fay alal ñu may ko baatam loolu bu saxee ci ay seere bu ko yoon xamee day nangu alal ja delloo ko jigéen ja te du tee lam bëggan muy moom boppam mooy lam bëggan ñu may ko baatam am na ko wal xul xu summikoo nag talxatun am pase la laa rañ xata moom deetuk fay li fiihaa muy nekk ci moom illaa bi ñu kaaxin dara ci ab sëy jadit bi aji yees biri daaxa ànd ngërëmul jigéen ja summikoo moom saa yu amee rek nga xam ne jigéen daa jox alalam ndax ñu may ko baat su ko góor gi waxul ne ko may naa la sa baat it du tee yoon jàpp ne moom góor gi fase na soxnaam menn pase moo xam ne du amuk fay li mën nañoo bàyyi nag bu edda ji jeexee te juboowaat mu takk ko takk bu yees rek waaye fay li moom du ca mën a am ndax bu ca fay li mën a am mu ñàkk ñaar yoon fay àllam ba noppi kooko fay di ko jëlaat buumu séem loolu mënta am wal moo taqatu jaam bu jigéen buñ goreel taxtal xab di ci ron jaam bu góor laxaa ñeel na ko alxiyaaru tànn ka antu xiima ci mu sax ma xoo ànd ak moom awtu awtu faariqaho wala mu teqaliko moom jamono yi jaam amee la wax ne jaam bu jigéen bi bu dee sëyeg jaam bu góor ne moom far yàlla xéewee ko ak ngor ni kii ka ko moom goreel ko kon bu ko neexee yooyu ak jëkkëram joojee di jaam sëyeg moom rek xam ne moom gor la te jëkkëram jaam la waaye bu ko neexee nag mu tàggoog moom wuti jëkkëri gor ndax xam nga sëyegub jaam ak jaam daa metti te bu sëyee moom dana yóbbaale ca métti woowee kon nag bu ko neexee ne ko moom gore na moom jigéen ji moom jaam bu jigéen bi mu tàggoog moom jëkkëram joojee di jaam te wuti jëkkëri gor wa man ishtara ku jënd zawjatahu soxnaam in fasaxa kon firiku na nikaaxuhu sëyam ba jamono yi jaam amee man ngaa su soxna ba yàgg nga wëlbatiku jënd ko ndax mën na ma am saa jaam bu jigéen may la ko soxna nga wëlbatiku waxaale man ba jaay la ko léegi su ma la ko jaayee ba nga moom ko rek bu mu séega tas na bu mu njaam gi rek moo fi nekk ndax dañu yaari buum yoo xam ne mënuñoo ànd xam nga ne bu mu sëy bu mu nawlonte ak teralante la bu mu njaam bu mu toroxte la ak moom guñ ko moom kon nag boo yoree soxna muy jaam ba yàggawul biti ku jënd ko daal bu mu séega dog na ba seet wecc bu mu njaam gi rek moo ko des wa talaaqul xabdi pasim jaam talxataani ñaari pase la jamono ñu taal séeri yi booba gor ak jaam dafa am bu dee gor dañ koy wax ne ko boo fasee ñetti pase mooy tax bu mu sëy ga jeex bañ wax ne bala nga ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar bu dee jaam bu góor na ci la toll jaam bu góor na moom bu ni su ko wax benn pase genn wàll waaye dañ koy wax ne ko soo pasee ñaari yoon sa soxna yow jaam bu góor bi jeex na bala nga ko mën a takkaat beneen jëkkër dafay jaar ba bàyyi ko nga door koo mën a takkaat wa idatul amati iday jébbirit xaydataani yaari bërëg la waaye nag bu ne woon tuxuraan yaari laab la lay gën a yeel la xam nga dangaa waxoon ne askor su jigéen moom iddaa mooy yetti laab bu tolloo ci gis te rek xam ne buñ ko fasee jamono yi gis ne rek du mën a tàmbalee wàññi loolu moo tax ñuy aaye ku fase jamono yi deret waaye buñ ko fasee ci laab moom day wàññi googa laab muy génn su gisaa si deret ba laab muy yaar su gisaa si deret ba laab mu yetti laab nag bu doon gor noonu lay def léegi mu ne bu dee jébéer na moom dis ko mën a waxal genn laab ak genn wàll dis ko mën a waxal laab ak genn wàll waaye kon dañ koy waxal yi ñaari laab xam ne kon jébéer biñ ko fasee ci fekk mu laab te wàññi googu laab bu ci tegaate geneen laab rek mu daal nekk yaar mu daal di mën a wutiwaat jëkkër wa kafaaratul xabdi kafaaray jaam ba kal xurri mi ngi mel ne gor di xilaafi maanil xudoodi ci wuuteeg maxnaay jitan ya wa talaax ak kase xeeti kafaar yi nag moom nee na lañ ciy sant gor sa lañ ciy sant jaam ba ak kafaar gu mën doon rek xamal ne moom dañ cee digal gor sa dañ cee digal jaam ba bu wutanteeg xeeti géttan yi géttan yi moom boo demee lu war gor sa rek xaaj baay war jaam ba ni ki njaaloo gor sa la ñuy caw téeméer yaa waaye jaam ba juróom fu rek lañ koy caw boo demee ci xas kenn ci tuumaal ko ci dox tànk caaxaan mi njaaloo te saxut loolu bu dee gor sa dañ koy caw juróom-ñett fukki yaa waaye bu dee jaam ba ñun fukk lañ koy caw mu yooyu rek xeet kit noonu lay def boo ñëwee ci passé itam gis nga ko ni passé neexuta xajal ci digg bu waaye jéem nañ koo xajale ndax waxal nañ jaam bi ñaari passé waxal gor si ñett gis nga ñu waxal jébéer ko ñaari laab te waxal gor sa yetti laab bu ñëw ci nambaale wa kulluma lépp loo xam ne wasala àgg na ilaa jaw fir rada yi jëm ci biirub aji namp ja fi xawalee ni caari at ya mi ne la bane ci soow ma fa indahu naka moom yu xarrimu dana araamal wa in massatan ak doonte ak ñeer la ak mucc la waaxidat nguddi genn daa wax ne bi xale bi tolloo ci nàmp ci diiru ñaari at yi moom ku ko fi nàmpal te du yaayam rek lam ko nàmpal lum néew néew doonte genn mucc la du tee mu daal di indi araamal gi nga xam ne moom la nàmpal di araamal te loolu mooy ka ko nàmpal daal di nekk yaayam ku ko boole nàmpal ñu daal di nekk yaari mbokk yu jigéen jëkkëri kookee nàmpal xale bi daal di mel ni bàyyi la ci xale bi mu yooyu rek wala yu xarim du araamal nag maa la nga xam ne urdia nampaleef na ko ko baxdal xawleen ci gannaaw yaari at ya illa ma ndare la nga xam ne xaru ba jege na min huma ci ñoom ñaar ka shahri ni ki weer wa nax wi ak lu mel ne moom waxi li waxis na sax wa shahrin ak yaari weer mu ne nag gannaaw bu xale bi amee ñaari at ba noppi ku ko mën di nampal nampal ga du wàññi dara lu may nag nga xam ne ñaari at yi mat ne waaye day door a mat dong ndax weer rek moo ci topp mbaa ñaari weer su boobaa moom dañ ko yemaleeg nàmpal ko ci biir ñaari at yi nga xam ne kon ba tey du tee nàmpal ga araamal waaye lu weesu loolu nag moom ku ko nàmpal tam du araamal dara wala fusi la doon te feralee foon na ko xablal xawle ni njëkk ñaari at ya fisaal ak feral istax naa gu doylu na fii ci moom bi taxaame ci ñam lam yu xarim kon du araamal maa la nga xam ne ol di xan nampaleef na ko ko wax de daal ci gannaaw loolee nee na bu fekkoon ne xale bi amagul sax ñaari at waaye daa mujj mën a lekk ñam ba nga xamee ne amatul soxla ci nàmp gi nga xam ne moom lekk gi ñam rek doy na ko ba nàmp gi jëriñatu ko dara kon yooyu jamono moom nee na ku ko nàmpal tam du araamal dara wayu xarrimu dana araamal bil wajoori ci xol xol mooy def ko ci gimiñ gi jaarale ko ci gimiñ gi maanaam paccal paccal soow mi ci gimiñu kii nàmp xale bi wa saxwati ak mbaraxan mbaraxan mooy jaarale ko ci paxi bakkan yi maanaam bu fekkoon ne du sax xale ba moo jàpp weenu jigéen ja muuc ko mu ñëw waaye jigéen ji ci boppam moo paccal soow ma jox ko ko itam du tee moo moo xam ne ko jaarale ci gimiñ gi moo xam ne ko jaarale ci paxi bakkan yi du tee rek mu araamal li nga xam ne moom la nàmp dëgg-dëgg te araamale mu nàmp dëgg moo xale bi jàpp yéen wa nàmp ko ñooyemoo dong wa man ardaxat jigéen joo xam nàmpal na sabiyan xale bu góor fa banaatu tilkal marati doomi jigéen ñi joojee jigéen wa banaatu fahliha ak doomi jigéen ñi jëkkëram ja maa taqaddama la jiitu aw ta axara wala mu mujj ixwatun ay mbokk lañu lëxoo ñeel xale bu góor boobee nee na jigéen bu ko see nàmpal xale bu góor da ngay wax ne kon ku jigéen ja jur rek moo xam njëkk muy nàmpal xale bu góor bi la moo xam gannaaw bu nàmpalee xale bu góor bi la ñooy ñooy ñoo xale bu góor ba ñoo bokk yaay xam ne kon seen diggante araam na ci sëy faawu faawu ba tey sax ñoo jëlale jigéen jooje waaye bépp doom bu jigéen boo xam ne jëkkër jigéen jaa ko jur rek waaw jëkkër jigéen jooje kum jur rek muy jigéen day mel ne moo xale bu góor boobee ñoo bokk benn baay ba tey góor bu jotee jigéen day mel ne jote gam joteeg moom jigéen ji amee na cam soow waaw kon nag léegi saa yoo xam ne rek jigéen nampal na xale bu góor rek xamal ne kon bépp doom bu jigéen boo xam ne jigéen jooju daa ko jur moo xam njëkk nampal gi la moo xam gannaaw nàmpal gi la ñoo xale bu góor boobu mu nàmpal ñoo bokk jenn yaay ba tey sax beneen doom bu jigéen boo xam ne moom jigéen jee juru ko waaye jëkkëram moo ko jur day mel ne ñoom jur moom jigéen joojee nga xam ne ñoo xale bu góor ba ñoo bokk ba tey noona ñoo bokk baay su boobaa araamal gi waxoon daal di am man nga ko misaale boo xamoon ku tudd Faati Jóob rek waaw xam ne jigéen la ñu xam nga ko yow mu nàmpal la ci bi nga toll ci waxtu nàmp jàppal ne kon moom Faati Jóob ku mu jur rek njëkk mu lay nàmpal ak gannaaw mu la nàmpalee ñooye moo day mel ne yéen a bokk Faati Jóob jur leen bu fekkee Faati Jóob Moustapha Jóob moo doon ak sëriñam ku Moustapha Jóob moomee jur rek ci ay doomi jigéen day mel ne yaag moom yéen a bokk benn baay boobee ba tey waaw bi ñu seet nag la ci njëkk nàmpal ga ak la ci jiit ak la ci mujj nàmpal ga ñoo ci yemoo araamal googu faaw dajee am wali axiihi ñeel na mbokkam mu góor ma nag nikaahu banaatiha takk doomi jigéen yi jigéen joojee yow mi nga xam jigéen jële nàmpal moom nee nga ay doomam ak yow yéen a bokk jenn yaay sa mbokk mu góor nag mel ne yaa ngi tudd Mouhamed Diagne boo amoon ku góor koo bokkoon léegi bàyyi moom mu tudd góor a Diagne yow bu la Fatou Diop mi nàmpal li ñu ko waxee léegi doomoon takk doomam ndax yaa ay doomam yéen a bokk jenn yaay waaye góor a Diagne mi nga xam yow la bokkal nag ngeen bokk léegi bàyyi mën naa ñëw takk ca doomi jigéen ñi Fatou Diop moom la ndax yow li tax mën laa takk doomam rek mooy. nampal gi te moom ki te moom Fatou Diop nampalu ko waaw kon yow ka sa mbokk moom nga xam ne ngeen bokk ndeg bàyyi rawante ngeen bokk bàyyi doom ñoo ci yemoo mën naa ñu takk ci doom yu jigéen yi jigéen joojee ndax moom nampal gi rek moo araamal te moom kenn nampalu ko yow la nampal yow ba araamal am ja
baabun li ab buntu la fil iddati ci idda wan nafaqati akub dundu wal istibra'i akuk laablu xidda mooy diir bi nga xam ne bu jigéen ji tàggoo jëkkëram moo xam yoon moo tas sëy ba wala jëkkër jaa ko fase wala jëkkër jaa faatu diir ba nga xam ne moom la war a toog bañ mën a wóorlu ne kee mu tàggool ëmbi wucca loolu diir boobu moo tudd idda ndaxam nag du tee sax bu nu wóoree ni ëmbi wucca itam dañu ko digal rek saa yu waree iddaw rek daal di iddawu léegi bu doonee gone ba du mën a am doom wala mu magee ba naagoo ëmb itam du ca dara dañu ko digal rek fu war a iddawoo rek na iddawu bu fekkoon ni tubaab yi am nañ ay jumtukaay yuñ mën a seete seete ca ba ne moom mii kat kee mu tàggool ëmb ca itam te nu wóor na nu it du tax ñu sukkandikoo loola ndega war naa iddawu ci yoon rek na iddawu lim tuddi ab dund nag day bëgg a wax fa nga xam ne fa lay war a joxe dund ak fa nga xam ne waree su ko faa joxe ma ni ki ko ñu fase ndax des na ko jox dund wala déet ak ku jëkkëram faatu nu muy dunde fu muy jële ab dund ak yu demee noonu muy an nafaxatu dund ba al istibraa'u laablu nag la ci gënoon a yaatu ca bu muy taalif téere bi mooy booba xeetu jaam dafa amoon soo amee jaam bu jigéen nag am gu yees wër laa jekki-jekki joteeg moom war nga koo wóorlu laablu ko ba mu wóor ne andaaliwul ci yow am ëmb waaye nag bokk na ci xeeti laablu yi nga xam ne ba tey mi ngi fi te du fi jóg mukk mooy jigéen buñ joteeg moom jote gu aay moo xam day joteeg njaaloo moo xam day joteeg jaawale warees na ko laablu ba xam jote googe ëmb na ca wala ëmb ca nga xam ne bu fekkee amoon na jëkkër bu jëkkëram joteeg moom te laabluwuñ ko ba xam ëmb na wala ëmbutam déet bu fekkee amutoon jëkkër bu ko kenn takk te teeyluwuñ ko maanaam te teeylu wuñu ko ba xam ne moom ëmbiwut ca jote googe léegi na ndegam moom amatul teqale gor ak jaam ñëpp ay gor lañu man nga ne kon képp koo xam ne xeetu njaaloo googu dal na ko wala jaawale ci xeeti jigéen ju man di doon day toog diir bu toll ne diirug idda rek moom lay toog ñu mën caa xamee ba xam ambi na ca jote googee wala ambiwu ca wa iddatul hurrati day gor su jigen al mutallaqati kadi kuñ fasé talasatu qurwin ñetti lab la kanat mo xam nek na muslimatan di julit bu jigen aw kitabiyat wala mi ko juk téré wal amati iday jeber wa man ak nga xamne fiha nek na ci mom baqiyatu riqin da ci njam qur'ani yaari lab la tan mo xam nek na azawju jëkkër ja fi jamihin na ci boole seen xorran di gor aw xabdun wala mu di ab jaam ba muy taali séeri bi booba gor dafa am jëbbeer muy jaam bu jigéen am moo tax mu teqal leen mu ne nag fekkee ni kooku day gor su jigéen jëkkëram fase ko kon bu dee koy gis deret yetti laab la war a am door a mën a wutiwaat jëkkër moo xam nag day julit moo xam day ji daa nekk diine yahud mbaa diine nasaraan bu fekkee nag moom day jébeer moom kiñ fase day jaam bu jigéen man naa muy jaam bu jigéen bu sotti man naa mu laal ci njaam ki ñu goreel lennam bàyyi lennam kooku bu fekkee dina gis deret iddaam yaari laab lay doon maanaam buñ ko fasee fekkee daa am njëkkal jëkkal da fase ko yaari laab lay doon bu amee yaari laab rek